woowaatee comme tey duñ ko renvoyé beneen yoon ñu convoqué que le premier décembre il va pas répondre. mais il doit répondre parce que peut-être duma répondre sax à sa à sa place question boobu. la personne la personne la mieux habilitée mooy. monsieur Barthélémy Dias et man peut-être suggestion rek laa ko mën a def xëy na wax na ne du dem mais jàpp naa ne ay ay collaborateur am ay avocat wam dinañ ko convaincre mu dem joxe ay argument comme moom moo demandé appel ñu vider dossier bi nga xam ne ëllëg si bi du dara lu ñu mën a teg si ndoddam parce que je le dis homme politique yi ñu ñi di def politique le camp peut-être pa changer tey mun nga nekk pouvoir suba nga retrouver opposition et ñu nekk toujours di défier les lois et règlements de ce pays tey gis nañ fi ñu ne Euh, président de la république doon nañ dañ dina metti torop mu tere nit ñi parce que am na fi jamono doon toll daalaan def di def forcing moo tax tey peut-être ku mu nee bàyyil doo sañ a bàyyi donc je pense que ñun ñëpp dañu war a tënku xam ne tey ñun ñi nekk opposition wala ñi nga xam ne dañu féete opposition demain mun nañu dem au pouvoir te dinañ soxla ñu ne sénégalais yi bàyyi leen bu leen marche sénégalais yi ne duñu marche parce que jumtukaay yooyu lañ mettroon à à peut-être à notre à notre disposition ba nekkuñu di défier autorité parce que ëllëg si biir yow mi nga xam ne tey da ngay subir peut-être autorité ëllëg si biir tu peux retrouver à une position boo xam ne yow autorité nga te di nga bëgg nit ki mu bàyyi ñu défier la génneel la vaar et du loolu loolu mooy li gën parce que ñu bëri bu ñuy ŋàññi sax li nga xam ne moom moo di convocation bi mooy que ni ñi ngi ci ñi ngi waajal ay élections est-ce que jamono ji yaakaar nga ni pour apaiser la situation mënoon nañu xaar ba nga xam ne élection jàll na wala rek ñu topp li nga xam ne moom mooy justice su mu tëral. man dama jàpp ni institution bu nekk am nga sa agenda du ñun ñoo lay définiral sa agenda bi ngay liggéey et je pense que communiqué waa autorité judiciaire yi leeral na ne monsieur Barthélémy Diaz convoqué woon nañ ko même avant ñuy xam ne dafay nekk candidat et bi muy dem bi mu demee juillet notifié nañ ko ne ko le 7 le 10 novembre war na ñëwaat ci ci procès bi bon je pense que ni foofu lañ war a tënku ñu agir en républicain bañ di défier benn ñaar itam waruñu tamit di sukkandiku parce que diw nekkatul sunu camp rek dañuy activer la justice et man dama koy wax di ko biral man je crois en la justice de mon pays mu baax mu bon suñu justice la mu néew doole mu am doole suñu justice la et ñun ñëpp justice dafa nekk suñu kaw et man pour respecter le principe de séparation des pouvoirs parce que man dama bokk ci ñiy defar loi ñi naan loi bi na am walla nañ ko voté nañ ko buñ ko voté justice mooy ki koy appliqué waruma nekk naan noonoo kii nañ ko convoqué heure bi kii buñ ko mais li ma mën a suggérer mooy que ni monsieur Barthélémy Diaz il a intérêt comme dafa bëgg briguer le suffrage des Dakarois mu dem ñu leeral setal deram su fekkente ne deful su fekkente ne dañuy confort ñu mais itam na dem mu uyi ji ñaar mais itam bu ñu jël yoon bëgg ko utiliser pour bañ pour sofental wala pour suufeel candidat wala pour tilimal candidature kenn. moo tax est-ce que du euh, comme ni nga ko souligné tout à l'heure c'est-à-dire ñi nga xamante ni dañu ci pouvoir et le plus souvent dañ naan euh, ku ca féete rek yow luñ la war a teg ci ay daan luñ la ko teg loolu moo tax euh, en réponse l'opposition moom pour répondre à ce genre d'acte ñoom aussi ñu seen côté bu ñu leen woowee ñu ne dañuy def appel à la résistance gis nañ quand même mi ngi commencé di bëri a chaque fois bu ñu convoqué benn opposant euh, dañuy wax ni euh, peuple bi nañ génn mobiliser wu pour bien sûr daal di ànd ak ñoom ci combat bañ la leen li nga xamante ni moom lañ leen bëgg a teg est-ce que du tamit loolu moo nar a euh, continuer face à cette situation là. je pense que ne ñun ñëpp ay acteurs politiques lañ nous tous dañu war a ñëwaat à la raison gardée. chaque jour ñu convoqué fi jaaykatu ginaar wala ku sàcc ci ginaar su doon day dem ne ñëw leen wuy si ma je pense que du sotti je donne juste des exemples très et c'est des faits monsieur Karim wadd su ma juumul convoqué nañ ko fi lu tolloog sept fois si traque des biens mal acquis su toogoon ne man du ma dem est-ce que mbir mi dina sotti monsieur Khalifa Sall convoqué nañ ko si caisse d'avance su ne woon j'appelle à la résistance est-ce que mbir mi dina sotti et je pense que ni les vraies résistances yi ñu war a convoquer et man c'est mon humble avis mooy nu ñuy fexewee ba ndaw ñi am liggéey vraie résistance bi ñu war a convoquer mooy nu ñuy fexe ba am ay abri provisoire yu dooy parce que suñu doom yi fii si Bargny rek suñu doom yi amuñu ay assez de classe lu ñu war a convoquer pour résistance mooy fexe ba suñu rakk yeeg rakkaan yi di toog si ay table banc suñu médecins yi mun a dem fépp si gox-goxaan yi si Sénégal je pense que c'est ça la vraie résistance parce que effort yi ñuy consentir pour naan aar suñu démocratie samay droit kenn du ko salfaañi suñu ko di doon def si les vrais sujets de l'heure je pense que dépassé nañ fii 61 ans après nos indépendances. ñu jëm ci ay élections ñu gis mbir yi nu mu tëddee est-ce que amoo ci njort quand même bu ñaaw par rapport ak li nga xamante ni ci la ñu jëm gis nañ violence yi Ziguinchor gis nañu aussi yi nga xamante ni moom mooy xew un peu partout ak surtout liste yi bi ñu ko déposé ba noppi ñi nga xamante ni dañ leen rëkkalee également menaces yu ñu def ak yenn propos incendiaires yi et tout globalement sa gis-gis par rapport ak waajtaayu campagne ak élections yi nga xam ne moom la ñu déglu en 2023. en aspiration démocratique la dem mel ni rek nit ñi su suñuy dem làmb ji chaque fois nga gis ay nit yu taxaw man maa la mën dinaa la duma wala yow lii et cetera donc je pense que euh, globalement li ñu mën a wax ci investiture yi ñi bëgg dem coalition dem nañ coalition ñi bëgg dem liste indépendante dem nañ liste indépendante ñi bëgg ànd ak pouvoir dem nañ ànd jeeg pouvoir li am solo mooy lan moo lan moo ñu war a boole ci élection yi parce que élection gox-goxaan yi la suñu gox-goxaan yi je pense que du ay du ay du ay nit ñuy juger seen carrière yuy jouer war a jouer seen carrière du ay nit yu war a peut-être falu président de la république mais ay nit yoo xam ne dañ leen war a dénk gox la et boo gisee man am na benn événement bu ma boo xam ne vraiment dafa ma yéem parce que dafa am benn coalition bu tànnoon benn nit pour mu gérer pour mu pour mu nekk tête de si benn quartier fii si Dakar mais ñu gis ni euh, dañoo soppar ñi liste ba tey ëllëg si biir kooku suñ ko dénkee suñu état civil bu mu bett kenn mu def ay malversation parce que lu niñ naan lu nuyoo ci ci sëy feeñoon na ci doxaan bi dañ kaa dañ ko dañ fekk dafa fekk ñu fay ko donc je pense que benn ñaar mooy euh, keroog dégg naa caucus des femmes ne vraiment ñoom satisfaite nañ si euh, le fekk ñu investir une soixantaine de femmes mm. sur les listes électorales et ñu ngi leen di ñaanal ñooñu itam bu ñu demee yàlla def ñu jox leen euh, seen si ay bokk moomeel parce que gis nañ ne jigéen ñi bu ñu leen dénkee am nañ fulla kenn du leen dégg ci mbirum corruption kenn du leen dégg ci malversation te dañ leen di dégg si loo xamante ne dafay jëmmalee kanam gox yi ak goxaan yi beneen bi mooy euh, conviction politique dafa war a dellu si waat gis nañ fi mandataire bu daw ak ay liste donc je pense que ne xëy na est-ce que waajal nañ ko wàccaay bi waroon gis nañ fi tamit ay nit yu bokk camp ñuy xuppante di xeex mais je pense que loolu yëpp c'est dans la c'est dans la démocratie mode bi choix bi euh, parce que gis nañ mbir mi bu mu commencé investiture et tout ñu féete ci majorité présidentielle dañ ni président waruñu xaar président di leen tànnal koo xamante ni moom ci gox bi ndax élection yi ci élection gox la du élection présidentielle est-ce que déjà yow euh, bokk nga si ñi nga xamante ni dañu bëgg genre réforme ci wàllum élection yi ñu xool naka la ñuy defee choix yi wala ñu maintenir mbirum coalition lu muy tëddee wala euh, en tout cas mbirum euh, parti au sein ñu bàyyi rek koo xamante ni moom mooy njiit li mu mm. tànn xam nga xam nga fii lan mooy lan mooy le véritable problème tey bu ñu continuer di def tànnin yooyu dañuy continuer di nekk des maire d'un parti politique alors qu'on est élu pour servir et être redevable à aux commune benn ñaar man dama jàpp ni comme ni ko ñenn ñi waxee élection gox-goxaan la ki gën a peser ci gox bi kooku moo war a dem sama classe yi nga xam ne xëy nañ ñi ngi door a tàmbali si politique amaguñu base walla demuñu parce que suñu demee dañuy dem nii rekk à l'aventure liggéeyaguñu liggéey bi war pour que nit ñi mën la wóolu mun la dénk bien vrai que député nga et cetera mais liggéey bi war ci gox-goxaan yi je pense que ne nit warul tëju rek ne man kii kii laa tànn parce que bu boobaa dafay indi ay frustration dafay indi ay sanctions et bu boobaa. Euh, respiration démocratique bi war am du am dañuy jël ñenn ñi favoriser leen au détriment de de l'autre nu mu amee ci opposition noonu la amee ci ci pouvoir parce que gis nañ fi ay liste opposition yoo xamante ni itam fustiger nañ le fait que ñu jël ñenn ñi def leen tête de liste alors que du woon ñooñu peut-être le le le kuréel gi tànnoon wala ñoom ci ñoom noonu la ñu xalaatoon donc je pense que élection yëpp muy élection député muy élection maire suñu bëggee des élus redevables à communauté il faudrait que ñuy fexe ba askan bi di leen tànnal seen bopp bu ñu leen tànnalee seen bopp nag bu boobaa askan bi lañ fay teewal mais pas chef de parti wala keneen. aussi gis nañ yaa ngi ko doon sax souligner euh, léegi mooy mbirum euh, daw ak liste yi ñu yi ñu gis. ay ay mandataires yoo xamante ni dañ leen jox ñoom pour responsabilité wu dem déposer ay liste ñu gisee ñu ñu daw mais bu ñu demee ba benn étape boo xamante ni nous sommes à quelques euh, semaines sax disons des élections ñuy gis genre acte yooyu nga xamante ni souvent dinañ ne est-ce que lii bokk na ci ay valeur wala éthique bu euh, politicien bi war a am mu di jaay en quelque sorte sa parti pour pouvoir intégrer